internet yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan te ñëw fii tey seen émission seeti mbër seet si xale boo xam si ni làmb da koy bàyyi xel muy euh, Siteu bu Pikine SBT ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ginnaaw bi sant yàlla julli ci di sant suñu ñaari waajur euh, di nuyu Sénégal yëpp di nuyu suñu waa koñ fii ma nekk ni muy jàmbaar waaw di la bëggee di la wax jërëjëf borom Touba jërëjëf la ko maam Seera Fall Lamp. ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan te ban écrit nga nekk. man maa ngi Pape Diop Boston a ñi nga xam ñu ngi lay seetaan la tey boo na wax kan mooy Siteu bu Pikine ak la ma wax boole ak lamb hmm? kan mooy Siteu bu Pikine la ma wax lamb waaw Siteu Pikine benn boy la nii rek xam bu foo ndoog ci ay nekk quartier boo xam te ne mën naa la quartier lamb la dinaa moom booy ànd ak mbër bu yàggee yàgg yàgg moom yaakaar naa ci li ñuy yëngu yàgg yàgg daga leen fay da nga leen ciy si rek looloo ñu boole ci lamb daal waaw. comme yéen mbër ah, ku ci mel ni ay ñoom paxu néew. ay Pape Diané ay ñoom Lomfor ay ñoom Samba Lawbe Gakou de Youssou xam nga mën naa la daanaka daal génération boobu man maa ci mujjee jug. ah. ay français rek nga ay de ma la limal ay der lañ billaahi ñi ma la limal ay der lañ. ay Ibou Diis moom bu ne Ibou Diis wax nga lépp daal kooku moom mën naa la ndaanaan ku la fadlin mooy moom. seen émission seeti mbër la SBT Média euh, tey euh, ñu ñëw fii Pikine seet si ko muy Pikine Lansar ah du nuyu koo xam se ne nii a ah, muy sama waay <laughs> nit ku baax koo xam se ni waaye dama ko dama koo fekk ci ruq boo xam se ni xam naa bëggul ma sore ci naa ci def rek mais mais mais mais fan a fan nga ba waaw mën naa leen nag man moom li ma génn ci àll bi bëri na wax dëgg yàlla booy xool ma sama combat mbapat yaakaar naa ay neuf combat mbapat la neuf combats mbapat mais li ci des yëpp ci àll bi laa ko def dem naa ay Fimela Diofior ay Ngëriñ ay euh, Saly Joseph foofu laa mujjee génnee daal. donc neuf combats mbapat ah, daanaka neuf combats mbapat def naa ko mais booy xool six yi laa bëree six quatre ci des yëpp dafa yàqu. gaa yi ñëw ci biir géew ba xam rek sàq. sàqi non man du ma sàqi du ma sàqi bari Serigne Bamba. si ñi nga mbapat ñoo xam ne tey làmb xam ne ku si mel ne kan ak mu daan la wala nga daan ko. waaw su ma juumul fils de Balla mos na ñoo bëre zi euh, euh, nu mu tuddati waay rajo rajo rajo rajo Géejawaay bi bi Père Bour ne woon XFM waaw bëri nañ ci mais yàlla dafa dogal mu daan ma pot pile waaw. à part fils de Balla. ay kalu kalu ak euh, Sores ak Boy Buna bu Pikine waaw ñooñu daal laa xam ne cité naa leen ñoo xam te ni lamb daal bàyyi woon bàyyi woon na xel daal de trop. ñooñu kañ nga si daan yow de Balla dalaa daan ñee ñoo la daan. non daanoo si dafa ñëw ñu bëre ba ci digg ba xamatul nu mu kii gars yi ni ko da ngay réserver làmb ji ma gagné ko par avertissement. dañ lay yóbbu vaar dañ lay yóbbu dañ lay yóbbu vaar vaar dañ lay yóbbu de. yomb naa lu dul dëgg. yomb naa lu dul dëgg. billaahi. saak saak dégg naa ko tudd benn mbër Ibou Diis Ah, yëgaloon na Mbapat rek toj ñii mais bi mu demee si arène bi daa jékki-jékki jënd glace. kooku moo xaali kooku mën naa la Pikine moo xaal affaire yi moo ñu xaalal ba am yoon. billaay muy ndaanaan nekk jàmbaar. mu nekkoon ndaanaan mu nekkoon ndaanaan. non ma ndaanaan mooy ñu fi des ba léegi quoi mais dafa dafa jënd glace. non non c'est xam rek tolluwaay jamono rek mais moom xëy na moom li mu maa ngi nii dinaa ko dabawaat incha allah rabbi te aussi tamit loolu la ma la ma yan ci kàttan yàlla te ñu ngi ci yoon boobu noonu yàlla yàlla xeeb doole rek ñu matale yéene incha allah rabbi. xel dem na diggante diggante Diis ak ak ak Boy Auguste Ndiago keroog bi ñu dajee fii ci koñ fii la woon. ay Ibou Diis Lamine Golo ay Ibou Diis Mam Balla ay Ibou Diis euh, comment dirais bébé Aline yu bëri bëri yoo xam ne maa ngi si biir nekk liccin nekk tout tànk ne seen biir. billaahi moom maanaam dama ko yaaga top bari na moom mën naa mën naa ni su ma demee ba viser un cent pour cent moom mën naa la moom am na ci part. waaw ndax dama ko daan topp fu ne fu mu daan bëree fu ne damay dem waaw. donc di ko nuyu de ah, moom vraiment borom baax la muy ndaanan ah di nuyu nag kenn ma ah, ci man muy bébé diis maa ngi koy nuyu moom it gars yi war nañu ko jël de bébé diis moom sama sama. waaw waaw moom champion la champion la dëgg yàlla nekk na tout tànk bu baax ñu bokk koñ bi wax dëgg yàlla. ñu génn ñu génn simple bi ñëw ci mbàccum gerte bi ñaata combat nga def arène. waaw booy xool daaw jéeg laa bëri nag sama digganteeg euh, caatu Bambey waaw ma top fugu de jeunesse rek xam rek. topp xeex bi dem ba. ay topp xeex bi non da ngaa ñëw parce que bi nga koy jël bi nga koy jël bi nga koy jël gars yi waxoon ne la sa waay moo la mën nga ne non. non koy jël gars yi nee nañ ma séeréer la day mbapat man leen li ma def yaakaar naa man kii nii bu dee ci wàllu mbapat kii nii mënu ma cee daan mais dama dem ba ci biir géew ba xam ne kii mënu ma daan ci dara benees man naa ko nag foog topp sama fugue de jeunesse maa ko put doole combat boobu noonu dëgg yàlla. ku dee ak sa bàmmeel mi ngi may dégg yaa daan waay ba si nga def sa waay moo la ëpp doole moo la mën see xam li problème li naan du du du seraan doomu aadama <laughs> man loolu laa ko jaafee quoi mais combat bu ma naa li moom defet bi li ko gën a sawalu daal daanaka daal dama naa maa jaay sama làmb ndax boo xamante ne du yoon daal waaw moo tax ma ñàkk a làmb léegi li ma bëgg mooy nga ñoo lañu si combat na waaw arbitre dafa sifflé ma dox dur góos mu dox gauche après ci laa ko tëjee fermé droit am ci la doxee mépp ko mu daw dóor ma génne ko remise ko ma ko remisé après muy daw di ñëw ma bal ko foofu noonu rek mënoon naa ko nooju mu toog mu rëpp mais dama ko bal ma ko balee léegi jàpp ngemb li poñe ko léegi dóor ko hypercule mu sigi ma dóoraat hypercule xam nga fàq ko mu ñëw ma téye ko di ko dóor ba ñu génn saaku yi mu ñëwaat dem ardo bi ñëwaatee arbitre sifflewaat mu dawaat di ñëw di jël sama tànk bi ma yokk sama tànk mu bàyyi tànk bi foofu tamit su ma ko fàqatee day ñëw ma ne ko loolu lépp bëgguma xam nga ma teewaat ko poñe ko xam rek di dóor naan boo entraîné ba ndaw ndaw lu entraîné ba yëg boppam <laughs> naa ndaw bu entraîné ba yëg boppam rek xama rek lu ko xelam kii rek waaw aussi tam mu nekkoon suñu premier combat mu nekk tamit njàngat daal ñu am ci njàngat ñu jëlee ci njàngat lu bëree bari waaw far yàlla tamit nag bi ma ko dóoree ñu daw génn après bi ñu dawee génn noonu ma ërtal ko mu daw génn sama tànk glissé si laa ko dóoree gauche droite léegi bi may kii daw di ko chercher pour takku ko léegi bi ma ko dawee takku si laa jéggi sama scintigraphie xam ni fi ma dépassé naa daal limite bi ma bëggoon après ci lañ doon def mbotu tàqalikoo yooyu noonu c'est sama tànk bi ma appi sama bi ma appi tànk boobu moo glissé après ci laa ñëwee mu yokk ma ma ñëw teg li waaw noonu la amee ndam sama kaw ma sant nag. aussi tam muy Baye Fall wax wax ju rafet ndax bu ma neexoon bu ma daane bu ma daanee mënoon na wax neneen daa wala leneen. mais moo koy yoonu sore na de. torop sax toog naa une semaine yàlla yoo xam ne génnoo suñu gars yi kenn ku nekk ñëw nga ba sama meeru koñ ku nekk ñëw nga mais billaahi génnu ma daa ma jékki-jékki benn lundi rek laa jékki-jékki rek ërtër rek génn daw bi may dem entraînement damaa daw dama génn koñ bi daw ndax boobu pression bi diis na xam nga affaire yi métti na daal billaahi

ay promoteur doon nañu contacter mais li ñu bëggoon a bëriloo xama rek moo xawoon a kii quoi moo xawoon a yéeme daal aussi tamit gars yi ni ma bëgg a faj meer bu mu tax ga jël combat boo xam te ni mooy loolu noonu léegi ci laa répilé waat ñu waxtaan ma toogaat waxtaan ak sama grand yu diis ñu waxtaan après ci laay defaruwaat xam nga mais du tee moom gars yi moom ñu ngi ma doon di ma wax ay làmb dëgg yàlla ba nii ma waxee yow nii rek SBT Média seen émission seeti mbër tey moom ren jàpp na xale yi ñu seetoo ñi si ëpp am nañ combat actuellement nii ñi ëpp am nañ combat léegi am na xale yoo xam ne ba ngaa bëri ñoom ko si mel ne kan ak kan waaw xam nga moom gars yi nekkee di lim ay mbër bu fi nekk bu fa nekk tudd ay paa maa moom barke Serigne Bamba laa lay moo tax gars yi naan nooy il faut nga jël lu nooy fii laamu su ma naree bëre koo xam te ne maa ko magee ay cinq ans wala quatre ans man combat bu man su may bëree damay bëree su ma naataangoo koo xamante ni kii da naan waa ay naataangoo lañ ci lépp nag. sa naataangoo ku si mel ni kat. waaw bëri nañ gars yi fii da ngay laaj mbër mu yaakaar ni da nga ko pareel xama di ko may promo xama yooyu noonu. promo bay may kenn promo say morom lan non say morom lan boo tuddee say morom waa làmb xam ne say morom xar say morom. mais xam luy problème bi mooy. gars yi ci ni diw laa bëgg a bëreel xam day jàpp yow mi daa loo def ba danga koo liggéey ba pare ëlbatiwaat ko mais bëri na fi ndax ñi ngi may wax ay ay Boy Diop ba Fan Gol Tapé ñi may wax ay Zaya bu Malika xam nga may wax ay caatu euh, ñàgg la xooma daal ñi ngi may proposé ay adversaires yu bëri yoo xam te ne su may moromoon ay samay naataangoo lañ ci làmb man li ñu ma sant mooy entraînement te maa ngi ci man dama la saa su dama naa ma li ma liggéey di may man duma ma xaar ku ma ci soññ man habitude boobu laa amee quoi. am na yeneen xale yu tàng yu nekk Malika ëllëg nga tudd leen ngay ñam fi di jéem xëcc ay séance Malika. bëri mais boo ci xamee kenn kay jox ma. koo ma ci jox ma. Malika kay xam nga na ay booy sax. ah bëri na booy yi fa sax pourtant booy yi ma la limal nii nii bëri nañu bokk na ci booy yoo xam te ni ñi gën a ñu téye Malika ci lañ bokk de ñi ma lay wax nii billaahi doo tudd mbëru malaka yi te doo leen tudd mënul nekk c'est impossible force da nga leen ciy jiital boo nee benn da nga naan ñaar. ñeme ngaa lekk avance. waaye kooku lu ma ciy ragal koo leen laa nga jàkkaarloo ma ni nga jàpp man du ma seen ab malek xoola jàkkaarloo ma dama la ndax ñeme ngaa lekk avance. xam lu ndax ñeme ngaa lekk avance. lu problème bi man ay géant bu malek ma ñooñu yéemuñu ma. man ak yow wax ma. malek man yéemu ma. yow yéemoo billaahi géant bu malek yéemu ma te bala moo xamoon ni yéemu ma mooy arbitre sifflé génn sama diggante moom moom mu xam ni yéemu ma du ma ragal de. est li nga toog nii sa gannaaw Ibou di toog si wet gi sedd li nga añee neex nga naan sa level deuxième est-ce que du moo tax nga nekk fii sa waay est-ce que xam nga ne sa Malika der la de day xeex de. Madiane dama leer ba leer ni man bu dee xeex daa ma xeex bu dee fit maa ko ëpp fit bu dee doole ëpp ma doole ma loolu daf ma leer naañ barki Seydina ma te bir na ma ne man li may daj ñoom duñ ko daj man loolu leer na ma li may daj moom du ko daj. Sëñ Abou Malick Sëñ li may daj du ko daj li may tawoo sama yaram bi moom du ko tegoo yaramam. bu jógee ay général Malick ñoo ko indi ay kara doole. man déggoo su ma sang man su ma jugee bu ne yu di sang sama ginaar loo loolu rek doy na sëkk. dama jëlee la ay ñoom Mame Balla ak yeneen gars yi. billaahi man tapetuma loolu. wax jee fi nekk nii rek mais gars yi bu ñu wéetee kenn ku nekk xam nga ku la de barke Serigne Bamba. champion yi nekk ci làmb bëri na ko si mel ni kan. ah mais bëri xam nga mën naa la man làmb defaguma ci jeewoo boo xamante ni war na mën a tax xamam mooy loolu noon comprendre nga taay bi taay bi nga am say adversaire de taay yoo xam say adversaire potentiel lañ làmb boole na leen. Eh, mais mais maag booy jóob bu fol gaana fan fan gol lool loolu làmb la. wax nii rek mais ñemoo ñemoo lekk da nga koy wax ni di ko def non say supporter nga koy defalee. li gën a dee man Boy Diop man sama combat bi passé moom lañ ma joxoon ñu dem ba une semaine trois ñu ne ma dafa blessé. combat boobu yàqu ñu jox ma kii caatu euh, Bambey léegi dama bëgg mu ñëw ñu bu dee moom mi ngi may dégg na ñëw ñu leeral ko. wala léegi ñu woo ma dem jëli ci Boy Diop. déggoo li ma la demal nga jëli Boy Diop moom lañ ma joxoon Pape Diagne Sera mi moom la ma joxoon mu yàqu ñu ne ma daa blessé ñu jox ma caatu ñu leeral ko. na waaye day bokk. day bokk da ngay bokk yow. su bañee ah su bañee ñu njàpp te ni njàpp dem Grand Dakar. moo yow mii nii. ay ndaw lañ ragaluñ dara àdduna. billaay ñëwoo ko faa fekk moom Bamba laa lay giñal ay ndaw lañ amuñu dara lu ñuy ragal suma àdduna lu ma sama bët bi mayut <tsk> xanaa de. na ñëw ñu bëre gars yi xamante nañ suñu biir dañuy ñëw ñuy bëre ñun suñu biir ay ndaw lañ amuñu dara lu dul làmb. booy géej waay la moo tax boole wala. booy géej waay non ku ma ci làmb damay bëre yow. su mel ni kan bëri nañ fa. fils de Balla sax su ma ko buñ làmb boole damay bëre ak moom. ko diggante ma général Malick xaaral ba loolu leer ba pare. waaw may jox firnde rek moom moom buñ lamb boole dama ko dama koy jël. sa Balla yama ko ci mbojam trop te xam naa doo fa jëlee jora bàyyil fi sa Balla dégg ñu naa xaw ma euh, comment xaw ma cartouche xaw ma maîtresse bu walo mi ngi may laaj te man kuy bu waalo maa ngi dégg benn promoteur naa yaa bu waalo man ko man ko xaw ma ko man bu ñëwee ñu bëri man sama laa man amul frontière ku dul waa Pikine mais à part ça ku ma làmboo la may bëree làmb la moo ko tee neex. boo natee xaw a def nii xaw a kii. xam de. Eh, làmb la. nee defar jeex na. aliya bi <laughs> aliya bi. Ah. barki Serigne Bamba mbër du ma fa yab. Hmm. daa fekk daa jël Siteu bu Ndiassane rek. daa fekk dafa dajewul ak gaynde gi. Ah. Hmm. <laughs> xam nga koo tiimale micro nii gaan muy ndellu nii gaayam gaayam it dar ko mu nekk ko di wax lu ko neex dafa yomb mais booy nara boo ne ko yaag Siteu ñu tëj géew ma dongali wër ko dina tal leneen ba des ay defetam jeex na defetam day gën a yokk bu ma jëlee. laa la wax de champion bi dëgg géej waaye boppam laa lay waxal nii. booy nara yow sa jëmi bopp. man du ma mbër yooyu di jaaxa di laal fi di laal fi déedéet ci digg bi laay jaar booy noreel ci boppam bu ma jëlee defetam gën a yokk xanaa mu bañ ma jël pour muy mu bañ ma jël mais bu ma jëlee defee tam yokk. fi ko toog nii bu avance am ñoon doxee. barki Serigne Bamba fuuf laa koy def. avance boo nee laa koy def amul dara lu ma ciy ragal fuuf laa koy def. nga xam ne ñaari at a ngi ñu ngi ko wutal fexe ba am combat parce que problème adversaire la. xanaa kon daa fekk kon da avance daa agsiwul ci Siteu. ah xanaa fekk avance daa tegul fii daa dugul aliya bi jàmbaar bi ba gaynde yi wër ko. daa fekk xaamuli fii ci. dañoo bëgg ngeemul yi tooy. billaahi. ngir yàlla na ñu ñu bëri. bu aajewoo man ma wàññi sama kase yokkal ko. làmb ju neex la derbi la de. booy bu aajewoo man ma jël sama kase wàññil la pour ñu bëri na ñu bëri. seen émission seeti mbër la SBT Média abonné leen ngeen ba seen tous ko notification bu defee vidéo yi xam ne SBT mi ngi dugal ngeen mën si ànd ñun wax naa leen SBT ñàkk abonné wóorut waaw ñàkk abonné wóorut ndax euh, fi la fi la fi la xale yi nga xam si ni tey ay xale lan bokk ci làmb euh, muy Siteu bu Pape Diop Boston nekk xale nga wax na ngeen bàyyi ko xel dégg ngeen adversaire yi fi wax nag digganteem ak euh, Géant Géant bu Malika dégg nga nee na bëgg na waaye xam si ni moom moo di Boy Notaire ak yeneen champion ak Boy Diop mi nga xam si ni moo njëkkoon lekk caatu Bambey donc euh, tey euh, actuellement nii à part à part Boy am na yenn xale yu fi nekk. waaw xam nga dama naan dama dama naan sama làmb man xëy na dafa guma dara ci làmb ba war a may tax may may opté loo xamante ni mooy loolu mais ñi ma làmb booleel ñu ne si buntu bi rek bu ñu waree bëri nañ bëri waaw. ndax du ñëw ci man di dellu. joxante parcelle ko. joxante parcelle. ba tey kun fa indi ma jël. yaa ba parcelle. na teew kooku du Siteu du Papa Ndiaye. parcelle mbooloo laa la wax euh, laa lay waxal ku mat sa morom nooy mbargaale bergale waay aturinay aturenay kuy doon ma samba kuy galis na waaw noonu wax naa ne leen Pikine boo fi day dem ci ay ndaanaan yu bëree bëree bëri xanaa li mu def nii seen xel dem na ci ki nga xam si ni moom mooy ndongolo yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna waaye boo gisee li mu way ni sa xel dem ci abu cubala dem si ñeneen ñoom Yves ak ñeneen ñeneen mu wax ne la Pikine ay ndaanaan ay ndaanaan ay ndaanaan yàgg na fi ci wàllu bëree ci lu mu mën a doon rek ndeysaan Siteu kii mooy kan waaw kii mooy booy waali sunu booy la nii xam a booy bu nekk booy bu baax xale bu am talent di wax gars yi na ko gars yi gëstu jàppale ko li muy def bëgg na ko te mën na ko tout tànk la billaahi buñ ko jàppalee rek bàyyi mooy loolu te xam naa ni gëm na li muy bëgg na ko ta mën na ko defantuwul day def tout tàng la na ko gars yi gës na ko yi gës SBT Média la seen émission seeti mbër mais ñi ngi woon ci ki nga xam ne moom mooy Siteu bu Parcelles nga ne sa diggante Siteu bu Parcelles ah, mooy Siteu bu Parcelles kuy bu Parcelles kuy Siteu bu Parcelles muy bu jàmm gan ak bii toog yéen Siteu yi fi nekk yëpp ay xusma ñaap lañ ay mooy lan ah. ay tarkinda ban tarkinda boo demee ci tarkindaa mag bi nga ne ko kat mooy deuxième tarkindaa bi ñi fi des ñëpp ay curkindaa lañ ay curkindaa lañ ñooñ daa neex rek ñu tuddee seen bopp waa ay sita nii bi ñu dem jàmmagal lu ndaw lañ abu njaase moo ñu daan gunge ba raay ba fa lañ daan fere ñu nekk lu ndaw boobu sita nekkagul dara ñu nekk ay tutaan di fa fere billaahi bu ñuy génn abu njaase moo ñuy gunge ba raay ba maa sum benn gaan bi ñuy wax papa kooku moom booleeg jëmm jooju noonu kon xanaa léegi la neex rek gars yi tàmbalee tudd Siteu yi nii ñoo yooyu duñ dara ay corkindaa lañ nga daa may tarkindaa xaw ma Siteu bu parcelle xaw ma na jël ñu dem. est ce que ñi ngaa jël sa tur bi nga xam ne moom mooy Siteu bi ñu lay wooyee ak tur ko yi ñaar ko daane kii ko jël ko moom ko. moom loolu koy wax. non man kii yow laa yow laa toogal yow laa toogal yow laa man man man li ma capable pour def ko moom amul fit boobu moom boo nee ko nañ jël ñaar Siteu yi teg ko day bañ. day bañ. ndax xam na li ci ciy fekk. Hmm. déggoo de guddi yi ñu toll nii yàlla baana laf cat yàlla baana li ci kanam mi ngi sunu li ci kanam rawu li bët. diggante Pape Guy gi. ah xam nga Pape moom dégg rek laa am ci moom. quatre def. benn victoire trois défaites. na ñu neexal ko. moo la jiitu si laa moom da lay da lay may loxo rek. waa guy gi dañoo neexal ko lu may maye loxo. Ah, moo gën ko nekk xale ëpp ko mbooloo gën ko nekk jantal. non bu jógee non non moom bu jógee benn baraak yëpp a jóg moom. barki Serigne Bamba mën naa koo may. man ba guy ga. sama mafia maa ngi leen di nuyu à passage ñoom Kéba ay ñoom Thier. billaahi naa koo bootal mbooloo mu dem. barki Serigne Bamba. ma jël ma jël ainsi déggoo li la fi amul dara luy dugg fii nii di génnaat day ñëw rek day def nii rek waaw amuñu dara lu ñuy lu ñuy lu ñuy defan nii ay xale lañ dañuy liggéey moo ñu war làmba ñu tax a jóg nañ ko def rek ay xale lañ nañ bëre rek. noonu gis ngeen euh, damay tourné ci ki nga xam si ne moom mooy Ibou Diis xam naa amateur yi nam nañ ko ndax macha allah ay tàkkusaan yu am solo la fi def. wax dëgg yàlla muy koo xam si ni Pikine am na fuñ ko teg tey xale yu bëri Pikine bu ñu dee bëree boo koo ci dem seeti mu ne maa ngi sant Diis parce que moo tax ma nekk mbër ak yu mel noonu kon Ibou SBT ñu maa ngi leen di ziar di leen nuyu yéen ñëpp ak ñu toog di ñu seetaan muy eh, Siteu bu Pikine. waaw kii moom daanaka lim leen wax rek moo nekk ci moom parce que ndaw la te moo ngi nekk ci ay te mbër ku ko wax rek dañ koy wax na dem entraînement. moom kenn du ko soññ ci entraînement yi nekk na xale boo xamante ne nii yaa duma la mu ngi ci yoon mi te nañ ko bàyyi xel maanaam kuñ ne ne kaar taxaw na ne ma nañ ko jox Siteu dama naan na ko jël parce que maa ngi dégg ci kaw kàddu ñu naan euh, kii nu mu tuddati euh, mbëru géejawaay bi Kara doole xawma ma maîtrise ah? ku dul moom sax lijjanti wuñ ko moom ndax sawaay toll na foo xamante ne xale la te mu ngi ci entraînement yi te ñàkkul ñàkkul kàttan te li mu war a def moo ngi koy def lépp li nga xamante ne mbër du ko def day wàññi kàttanam nekku ca parce que ñun jaar nañ ci ba jàll waaw kon nag suñ demee ba moment boo xamante ne tey ñun ñu bàyyi lépp veewu ci ñoom bari na ci ay mbër yoo xamante ne ñoo ngi fi ku ci dal ni bébé diis mu ngi fi moom si tam mu ngi fi comme ñun ñoom moom lañ gisagu ñoom lañ gisagum ci quartier bi ñoo fi nekk comme ñun ñoo fi nekkoon jóge fi ñoom ñoo fi nekk kon dañ leen di teg loxo te moom nekk na koo xamante ne ni ku neex a jàppale la parce que mbër la boo xamante ne fonk na ay fonk na nit ñi surtout mag ñeeg xale yi ñëpp ñoo ñoo ngi leen fonk kon dafa doon loo xamante ne tey nii bu taxawee pour jàpp lu waaye jàpp lu ne da nga koy bàyyi ndax moom bu dee mbooloo mu ngi ci ginnaawam bu dee xel mu bëree mu ngi ci ginnaawam bu dee doole mu ngi ci moom kon am na loo xamante ni gars yi bu ñu nekk di wiirante wala ñuy naxante wala ñuy jaayante ay jeunes lañ ñoo ngi toll ci diggu làmb nañ nañ bàyyi ay di moytonte bi nañ jàkkaarloo mayante sens. léegi adversaire yi mu fa wax nii tey est ce que est ce que d'accord nga pour mu jël leen parce que ñu fa wax nii waaye waxuma la waxuma la ma la wax la wax naa ay ñooñu mënuñoo diis ba gën ñoo diis non non mënut a nekk. ñoo ngi ñoo ngi xëy di dem di entraîner ñun ñoo ngi xëy di dem entraînement gënuñoo baax lu ñuy dundee gënuñoo baax entraînement ay ndaw lañ lañ de ñu xool ba xam ku nekk la nga moom ngay ñëw jël si te gëm naa ne fu ñu dajee ñun lu ñu moom dañ koy jël si yóbbu dem suñu yoon parce que quartier bi loolu la namm e quartier bi dafa war a yëngu maanaan boo déggee sànq maanaam la avance moom lañ yaa xamte mu dugg parce que fii lu fi dug du génnaat ah. te yàlla nañ te ñaan nañ ci yàlla laa la waxoon ne bu duggee yaa dama la wax luy ñëw ndam lay indi parce que suñu sortie bu mujj bi daanaka ku ne seeraat nga ko quoi mais am na nu mu demee mais lépp commencement chaque jour li ngay njëkk commencé souvent mun nga fa jëlee expérience boo xamante ne te bu dee ëllëg boo ci duggaatee du dina dina dina méngoog lu ñu duggee woon quoi waaw parce que boobu maanaam dañoo naagu fonk suñu kattan. moo taxoon tooma bébé 10 ak euh, ak baara giri cinq am na promoteur bu ko bëgg waaw loolu lu neex la saay déggoo li ma la wax nee naa la déggoo li ma la wax ko poson la bébé 10 nga wax ma ne poson a ngi noonu amuñu lu ñuy dellu gannaaw quartier bi ñun ñëpp benn lañ bébé diwaan daan bi ma daan du yoon te dama ko war damaa war a dugg yëmbal am lu ma fa defaat ba mu leer parce que maag bébé diwaan il faut laam boolewaat. waaw non deret moo ko yëngal loolu mu wax noonu parce que dafa njëkkee loo xamante ne tey jii ni parce que gis nga un combatant soo jugee ñàkk soo jugaat da nga war a dem di indi sa bakkan bu fay des sax dafa war a des mais da ngaa war a dem jëli indi wan se say adversaire ne carrément ñii nii mënuñu ma wan se supporter lii maa ngi koy liggéey. chaque jour que jëfee yéen nekk leen sama gannaaw la ma war a nekk ma nekk ca te ñoom ñoo ngi koy jëfe tey ñoo koo ci romb gis ko da ngay yaakaar ne tey semaine bi la war a bëre parce que moo ngi nekk ci ay ñoo ngi nekk seen entraînement yaa ma la li ñu war a def ñoo ngi lëlu li gën a li gën a jafe ci mbër ñoo ngi ñoo ngi koy def ñoo ngi lëlu bëgguñu daray àdduna wutuñu succès moment bi mais kon ndaw bu fekkee ni da ngaa bëgg benn affaire di moytu yenn yi. kon jaral na la quoi kon nag nañu gars yi seet si ñu ñëw combat dugg si. seen bopp promoteur yëpp. ibbil nañ ñëpp ñun amuñu sens contraire wala fii la ñuy fii la ñuy dugg wala fii la ñuy bañ bañuñu kenn. Fallou Ndiaye Sam Dieye yi daal yi sëñ Modou Niang promoteur yëpp wax naa la waa Pikine ibbil nañ seen bopp ñeneen ngeen ñëw seet seen xale yi. waaw loolu loolu daal mooy li ma doon bëggoon lancer quoi si promoteur yi nañ ñëw ibbil nañ suñu port ñëpp. lu koo xamante ne làmb boole nañu rek bañuñu ko nañ ñëw waaw ci ginnaaw maa ngi sant tamit gars yi bu ko def bu ko defee euh, Mouhamed ak ñoom Abdou Abdou Khadir Jibi parce que ñoom ñëpp ñoo ngi nekk suñu encadrement tey maanaam maa toog fii parce que si pare man ancien lutteur laa comme comme niñ ko ancien goulaar rek comme ancien laa dangu naa mais bàyyiwu ma nag ba tey de bari na ci mbër yi nga fii yox ni suñu laalee day metti de mais tey jii maanaam dañ ne ko am kudd doo laq maanaam tey ñu bari ñu ma doon laaj naan ay diis gisuñu diis ibu gis gisuñu ko mais si taa ngi fi bébé diis ngi fi. émission sax spéciale parce que am na lu ñu war a waxtaanee ci làmb démb Pikine ak làmb tey ak adversaire yi nga xam se ni tey parce que gars yi na mën na na mën a xabtaan bi tooy nag. non loolu loolu loolu loolu dafa leer loolu dafa leer. parce que barina si ñoo xamante ni tey jii léeg-léeg su ma jógee entraînement ànd ak comme Siteu génn dem dañ naan ma xanaa da ngay préparer combat kon bàyyiwuñ suñ bopp xam lu tax mënuñoo bàyyi suñu bopp dañu am ay xale yoo xam ne dañoo bëgg affaire bi te ñun ñoo tax ñoom ñu dugg si kon ñoom foog ñu foog ñu gunge leen parce que ñun lu ñu dal ba ba mu gàllankoor suñu làmb ñun bu man bëgguma mu dal leen bëgguma mu dal leen lu ñu dal ba gàllankoor suñu làmb ñun bëgguñu ñoom ñu dal leen moo tax chaque jour que jëfee dañuy nekk seen wet dañuy nekk seen wet suñu suñu ànd entraînement ñooy ànd suñu ñëwee ñooy ñëw ku nekk tàqali ko waaw waaw. message bu am solo di kàddu yu am solo muy Ibou Diss ah, bokk ci làmb def ci lu nekk wax dëgg yàlla gunge xale yi tey bu nee bëgg bëre moom moo tax dégg ngeen conseil mu la jox ñu bàyyi la nga sant gërëm ñi lay jàppale ndax mbërit amoo lu may ñi nga xam ne ñoo lay jàppale. waaw di santaat rek dama fàtte sax bi may commencé émission mais suñu waa dëkk laa waroon njëkkee muy waa Ndiassane. ak suma dëkk yaay muy waa Taïba Ndiaye dalee tund kajoor bi yëpp maa ngi leen di di leen tàllal suma loxo di leen wax seen doom seen jarbaat moo leen di tàllal loxo pour ngeen defal ko ñaan xam nga ñaan lii mu nekk nii rek suñu borom defal ñu ci ay ndami ndam may sant suma yaay bopp ki tax man jooytuma yaay waaw muy suma yaay Binta xam nga di sant suma papa Sidi di sant koñ bi yëpp di sant Ibou Diis di sant ay ñoom Ngom ñoom Jibi staff bi xam nga Abdou Khader su ma limee juum sama yaay Kaja suma yaay Bob Faturé maa ngi koy nuyu di ko sant bu baax mami sama mag abi yaay xama su limee rek juum di nuyu ñëpp di sant ñëpp di rawatina waa koñ bi sama meeru koñ yi waaw du ma ko fàtte ndax moo ma njëkk a jox 10 000 francs ni ma demal demal defal defari licence yaay am moo ma njëkk a jox 10 000 ni ma demal defari licence billaahi kon kooku mënu ma ko fay di ko sant ko gërëm di sant ko gaale tukulóor yi yëpp su ma limee rek juum di sant sama mafia bi waa àll fas xam ñetti mbaar ñoom Keeba guy ga xam nga ñoom Brise ñoom ñaa gaa yëpp aw ma seen fay. di santaat sama bopp di santaat yaay bopp rek muy suma yaay Binta di ko santaat bu wér ndax dafa sonn gis nga taawul benee remboursement yi lay jël di ma ko jox te taawul benee dafa war a jugee dafa war a nekk ci kaw. billaahi dañ ko war a tabaxal benn air plus yóbbu ko maaka mu noppalu barke sëriñ waaw di sant ñëpp te wax na nag gars yi ñëw ñu bëree ñun loolu moo ñu war ndax booy xool. barke Serigne Ba soxla non man du ma du ndax parce que am lu tax noo tol benn phase boo xamante ni amuñ seppi koo seppi teg rek dañuy jël dañuy jàpp ni kooku la ndax lamb ji période bi ñun fi ñu toll nii nii nii ñun suñ dynamique loolu la koo seppi teg rek dañuy jàpp ni kooku la buñ lijjante kooku doo ko xoolaat leneen waaw di santaat mafia bi nag gaa yëpp ak sama boy yi ay ñoom ay ñoom Alsaan xam nga ñoom Buki Samba Ndiaye xam nga ñoom Omzo maam Fatou yaayam gàlle tukulóor yi ñëpp daal amoon seen fay mais daal lamb daal moo ñu ñor âge bi duñu fi xaar doole ji duñu fi xaar di lancer appel Macky Sall ngir yàlla na bàyyi suñu lamb yi ñu bëri te yàlla rek tax ngir jëmi Serigne Bamba ta xam nga ndaw lu entraîné xam nga ba toll ni mu war a toll di poser ay cent nangami kilo xam nga jékki-jékki rek gan nii xam nga li mu doon yëngoo nii nga jékki-jékki rek teeku nii xam nga day xaw a metti day xaw a metti day xaw a métti nañu dimbali rek sarax ñu rek te jël ñu sunu lamb. mënuñoo dem tuuxuñ ci Ama Baldé Modou Lo. waaw ah mais xir gi xir gi xir gi day dal rek. Ah. xir gi day dal de man moom wax dëgg yàlla ku ma xool xam moom ñun Pikine lañ ñun lu dul Pikine ñun moom wax dëgg yàlla mooy lool noonu Pikine rek ñu soxal. amateur yëpp jël nañ jël nañ xeex bi jox ko Modou Lo jël bëre bi jox ko Modou Lo yéen waa Pikine lu ngeen am ci kii bi fan la xir gi dal. ndax xamul lu da ngay xool Ama Baldé Malick danoo jëloon favori yëpp ni Malick moo daa xeex fi laa mos a toog sama gaan bi dama bàyyi fen jéen mii nii maanaam Malick Niang daa mun dóor ma ne ko na moytu encaissé ko Ama Baldé loolu moo ko xoon loolu lay waxaat no Lo na moytu encaissé ko Ama Baldé te bu jàppee ni moo daa xeex Ama Baldé 100 pour cent mi ngi nax boppam te ah Ama xale la yaakaar naa nekk amul yorul staff boo xam ne dañ koy dëj benn paas ndax Ama à chaque rek professionnel bi mu doon ak mbër mu mag bi mu doon mi ngi di gën a yéeg bu ñu jàppee ne Ama Baldé mënu xeex ñi ngi nax seen bopp bu ñu jàppee ne mënu bëri ñi ngi nax seen bopp mais combat la di ñaanal Ama Baldé dam xam ne muur bi mu ñëw ci lamb ji muur la tudd dem ba si àgg beneen tur ko muy xarañ ñu demaat ba si àgg beneen tur dab ko muy roi des arènes ah, te roi des arènes Pikine la ko jëlee waaw ah, mais ndax loolu waaw mooy waral nag gaan kon yow kon kay tontu nga wax ji xam dañ ko koy non loolu dañ ko koy bi muy ñëw muur la tuddoon dem bu yaa ñu indi xarañ waaw ndax loolu lépp ci njàmbaaram ak jomam moo ko may loolu lépp ndax bi muy ñëw matul sant cent nangam kilos yaakaar na matul mbër waaw matul mbër loolu lañ doon wax. su ma daan dégg ay sama père Begaay ay ñoom per euh, kii comment dirais-je waaw boo waxee ñun la ngoor si matul mbër matul mbër mais tey jii nii ngëm-ngëmam ak jomam ak fulaam moo ko àggale fii mu àgg waaye nag couronne biir Pikine la ko yow jëlee woon dugalaat ko parcelle nan dañuy dem jëli rek delloowaat Pikine. ñaar laale woon nañ ba pat am am nu mu demee ci yéen. ah mais loolu loolu loolu. na woon fa woon foofee rek la fay delloo loxo. loolu loolu ñëpp xam ne ni mu demee mbapat bi gaan ñëpp xam ko ñaari yoon ci waa parcelle yi yi ni jël amul mbapat bu ñuy bëri trois heures ba 5 heures du matin ba timis ba 5 heures matin. bu ko daan ñaaroon jox ko victoire Modou Lo benn mbapat bi xëy na bu ñu ko tegee sa koñ kay xam ñëpp xam nañ jamono yu mbapat ni mu demee sa mbëru mbëru koñ du daanu koñam man mi loolu dal na ma sama mbapat. koñu bunaa ma dem daaru di fa bëreeg mbër boo xam te ni moo ñëw embal ñoo débuté woon dama ko tax ba mu dëgër aras ko ba ci kaw gars yi kaw lañ ko capté barki Bamba mbëru koñ moo demee noonu Ama Baldé Modou Lô seen ko ci xeex Ama Baldé Modou Lô seen ko ci xeex waaw mais pourquoi pas pourquoi pas lu tax doo am xeex si ñoom ñaar ñaari ponkal yu xiifante kay ñu boole leen kay même Modou bugg bugg sax am am am bëgg na ko faalante ba pare faaw étincelle yi tàkk ba pare ñu doog a bëri doog Ama est-ce que Ama xeex ak Modou Lo wóor na ci moom. mais man boobu bu ma ko doon kii bu doon man la non du may fësal xeex bi on cent pour cent quoi du ma fësal xeex bi cent pour cent. combat bi daan mën na ci am. lépp mën naa am ah mën na ko dóor mu daanu. mën na ko dóor mu daanu. non man Ama Baldé Ama Baldé mën na dóor mu daanu. na fekk am am daal jël kii bi waaw. mën na lu ci mënte am rek na fekk Ama mooy jël ndam li indil ñu ko Pikine fii. waaw parce que Modou daf ñoo njoos daw quoi. dafa confirmé ñëw si daw de non ñoos daw mooy nga ñëw nga ñëw dem mais dafa confirmé dafa ñëw Pikine dugg duggaat. waaye nii lu tax non dugg duggaat dëgg la gis nga bu mujj bi daanaka bu mujj bi non man du ma ci débat sax mais lu may mën di wax mooy lenn yaa dama la ama yàlla nañu fajal suñu mer bu ñu meroon lépp ci Modou Lo waaw man loolu laay ñaan lépp lu ñu naqari woon ci diggante Eumeu seen ak Modou yaa di moo la yàlla nañu ko suñu Ama Baldé fayal ma loolu laa lay ñaanal mooy ñaan bu gàtt bi na na Modou njëkk a dóor rek na njëkk a lii mais na mujjee daanu ci nan na daanu ci suuf. na koroon bi ñibbisi rek. waaw na koroon bi ñibbisi lu munti am comme daa jógee ci ñu naan ñu naan Modou mbër mi xarañ yaa del ma bañ dugg ci roi des arènes yaa del ma la na léewtoo noonu ñu ne Ama ñu ne Modou cokkaas na Ama jëli na ko. ñu ne Ama jëmi na rappel na ko Modou Lo daanu na ci suuf am Ama toog na ci kawam loolu laay ñaan man te loolu la ñëpp di ñaan lu ñuy yeewoo ci biir Pikine waaw. moom dinañ ko seet si émission spéciale ndax euh, wax naa leen moom làmbaloog la dinañ ñëw fii parce que ah, Tapha Tine Boy Niang il faut ñu waxtaanee ko moom ah, ak yeneen ak yeneen combat yi nga xam ne waa Pikine am nañ ko ay soq gàmmu gay yooyu ay combat ay maam Balla norikil ñi bisi na ñu ngi koy ñaanal mu war naa mën a am combat ak yeneen xale yi nekk Pikine bëri na bëri na Lac na jël maam Balla Lac Rose na jël Mame Balla ndax xam na li ko ciy fekk gars yi dofuñu noo régil la de mafia noo régil lañ bokk amuñu dara dara lu ñuy bu loolu weesoo maa ngi gërëm suma gaañ bii nii muy mafaal day sonn ci man dëgg yàlla maa gërëm mafaal bu baax barke Serigne Bamba day sonn ci man di jël xaalisam di ko def ci man xama di jël xaalisam di ko def ci man xama di ma dugal foo xam te ni mooy loolu quoi kon man aw ma fayam quoi maa ngi koy gërëm mafaal bu baax dëgg yàlla ñu may jàppale saayir baatin gaa yëpp na aw ma seen fay mais moom xama rek dafa xaw a sori ci man daal barke Serigne Bamba di ko ñaanal jàmm ko ñaanal lépp lu mu séntu ci man rek suñu borom dogal defal def ko incha allah rabbi di sant ma mafia bi yëpp gaa yëpp nag comme ni ma la ko waxee rek ay ñoom Dieng ay Jibi Mohamed Ngom is ama ay Habib gaa yëpp waa gaale bi sama yaay Fatou Soumaré aw ma fayam day jël xaalisam di ko def ci man billaay man daal maanaam daal su ma meeru koñ daal ma seen fay ndax bëgg nañ ma tos jàppale nañ ma yërëm nañ ma billaahi te yéene nañ ma tamit rawatina suma yaay Binta barke Serigne Baba ak suma yaay Fatou Touré maa leen di di leen bégee lu wér a wér émission tey bi rek maa ngi koy may képp koo xam ne doomu Lansar nga ak foo mën a nekkee ci biir réew mi ak bitim réew maa ngi lay jaajëfal baax ah, di jox seen wàccuwaay di koo xam ne kenn la ci man muy Abdou Khadir Diène particulièrement di ko nuyu di ko jaajëfal baax ndax moom gis xale la mais am na taxawaay bu boo xam si nii macha allah nañ ko jàppale parce que gis ni mu sonnee ci xale yi nga xam si nii ñoom ñoo dëkk ah, di ko nuyu de passage di nuyu képp koo xam ne doomu Lansar nga tey sama émission tey bi ah, ñoom laa ko may vraiment di amaan mbégte kontaan di wax wax ah ay adversaire am diggante ak Boy Notaire lamb diggante ak Pape Guy gi diggante ak Jean Malika bëri ay adversaire de taille yoo xam se ni ay lamb yu neex lañu jar dem SBT Média la seen émission seetu mbër dajee ak beneen champion ak beneen invité SBT Média aca rang muy gën a gaaw <laughs>